jóge ci xarala yu bees yi doon na lu am solo ci réew yi te am taxawaay gu dëgër ci luy jëmale kanam seen i koom tey ji nag ñu toog ak start yu bare def ay jataay yu bare maanaam ay panel te waxtaan bi yëpp ñu jëmale ko lan mooy euh, njeexital lan mooy problème yi nga xamante ni start-up yi dinañ ko rencontrer ci seen doxin lan mooy ci solution yi tamit. ci Sénégal entreprise yi di yëngatu ci wàllum xarale yu bees yi daañu faral di jànkonteel ak ay jafe-jafe yu bare. aw Euh, dolli doole li nga xamante ne mooy infrastructure yi ndax Sénégal yemul Dakar am na effort yu bëri yu nekk def ci yeneen région Sénégal yi mais bëri na ay ruq-ruqaate Sénégal yoo xamante ne tey jii nii euh, donte opérateurs yeeg yi nga xamante ne ñoom la ñu dénk loolu pour ñu yombal loolu am nañ une mission de de couverture. table ronde bi DER amal doon na ab prox ndoll ci entreprise yu ndaw yi ngir ñu gën a mën a fësal jafe-jafe. yii secteur bi di jànkonteel waaye tamit wuti ceeb saafara. tey ji bu ñu buggee gën a dooleel suñu économique il faut que numérique bi gën a mun taxawu tey jii suñu suñu secteur prioritaire yi. yenn ci entreprise yi nekk ci xarala yu bees yi. jot nañ ci accompagnement wu programme mu PAVI ngir gën leen mën a dooleel. lu mat quatre-vingts PME lu ñu doon dimbali PME ak start-up euh, quarante yi ñoo assister ci événement bi ñuy def dina am vingt yoo xamante ni dinañ am assistance technique assistance technique nu muy wuteeg formation ak coaching mooy ne ko assistance technique par exemple du ñuy xool loo xamante ne entreprise bi amu ko. entreprise yi di yëngatu ci wàllum xarala yu bees yi. am solos gu rëy ci koom-koomu réew. DER fas yéene leen gën a dooleel ngir ñu gën a mën a jàmmarloo ak concurrence.